salaire loolu même salaire u député yi sax war nañu mën a dem ba ne sax indemnité de session nañ leen ko jox moo tax ñiy xalaat ne nit ñi dañuy dugg ci ay list pour dem naan dañu bëgg ami salaire mhm. ah man am na ñu ma wax ne yow da ngaa perte sa liggéey depuis 2002 ndax xeex bi ngay xeex ci politique moo tax ngay xataraay pour nekk député mais man 2002 ba 2012 fukki at la yàlla suñu borom moo ma téye. te mandat député 5 ans. ba mandat député 5 ans la ñaata mandat ñoo fi romb. bar nañ ci mën a dem ba ñu xoolaat sax bu dee indeminité de session la ñu jox ko député yi parce que nag réew mi toll na foo xam ne rupture yooyu dañ ko war a nangu bu mu nekk rek loo xam ne dañ lay jox yow nga changé sa nekkin il faut que moo tax ma ni parité bii jigéen ñi dem assemblée ni muy yokkoo dafa war a feeñ ci dundinu jigéenu Sénégal yi maanaam sas bu mag la ñu sas ñun jigéen ñi nga xam ne bu ëllëgee su ko yàlla tuddee dem nañ assemblée dans le cadre de la parité. Mm-hmm. muy man muy keneen man maa ngi ñaan yàlla en di laaj sénégalais yi ñu jàppale suñu liste ba ñu mën a dem taxawu fa askan wi. seeni nekkin assemblée seeni nekkaay assemblée dafa war a impacter si dundinu jigéenu senegal yi loolu lu am solo la impacter ci dundinu ndaw ñi parce que jigéen ay ndey réalité yu bëri ak situation yu bëri. bu posé woo xale yi dañu ñëw yaay sama yaay lii sama yaay lale mhm. kon nag loolu aussi ca la bokk mais tànneef ba mooy tax ñu am niveau nouveau type de député tànneef ba mooy ca d'abord investiture ba ndax investiture bi lan la dañu gis ci parti yi ne da ngay yeewu ñu investir ñi leen neex loolu moo fi xew ñun suñu parti gaa amul parce que benn la am waaye parti yu bëri investir ñu leen neex la dégg naa fi nag ku dem ba wax ne sax ñi ñu investir ah, ci ñenn parti gën nekk musiba loolu ba AFP moom musiba la benn rek lañ am AFP waa déet benn lañ am waxuma la benn sax saa bu cër juddoo rek euh, nga gis ñenn ji commencé di kii bu bu ñu sànni ah, xeer looloo am di ah, ñu sànni xeer pap non yow des contacts mais xoolan li may wax mooy c'est la catastrophe tànnin ba aussi dafa am solo te loolu souvent dañuy ci biir parti ñañu sant ñu tànn soit mu nekk leader ba wala ñeneen ñu wër leader ba dañ cay profité wu di réglé waale ay compte politique mhm. te loolu aussi moo jéggi dayo du ñu seet ki nga xam ne moom la ñu war a tànn yóbbu ko fa leneen li aussi mooy mode de de scrutin bi mhm. maanaam bu ñu jëlee liste nationale rek ñu ne acca raw gàddu la nu mu tudd ma ni liste nationale proportionnelle la mhm. ñu dem ca mais raw gàddu bi ci département bi moo gën a garaaw. Uh-huh. parce que raw gàddu boobu mooy bam bu fekkee amoo majorité. rawee nga liste bi topp ci yow benn voix. nga jël sept députés yi. nga jël set députés yi même soo amoon tey ndakaaru gii nga xam ne sept députés fi am liste bu am sax 30 pour cent beneen liste ba am vingt 29 virgule 9 pour cent. liste ba am 30 pour cent gagné sept députés yi te fekk c'est pas la liste majoritaire. Mhm. war nañ fi dem ba mu nekk sax am deuxième tour ci ci ci département comme en France. deuxième tour ci département yi dafi war a am ba ku amul majorité ñoo xam ne département bi joxu la majorité ñaari liste mais comme l'impression que hmm? la classe politique ne veut pas ça. waa mais nag xam nga xamal lañ bëgg. comme nii rek mu comme nu mu ne Macky Sall comme falu na président au lieu de faire des changements dama jox exemple rek. président au lieu de faire de changement en profondeur pour l'intérêt supérieur de combats de principe pour la démocratie non comme ni buñ ko jaaree ñoom rek liñ bëggoon am. ko pour gérer pouvoir loolu ça c'est pas bon loolu def loolu moom dina jeex. dina jeex parce que nag xam nga parti de l'époque est révolue bi nga bi nga xam ne parti ay xaru toppe ñoo ci nekk. maanaam des mouton de panurge. wala ay comme di mon frère Jo Diop euh, manque ngi koy nuyu au passage ay xaju sàmm. parti yi époque boobu dafa ci jeex parce que dafa am une nouvelle citoyenneté mais seen parti benn xeex bi ci xoolal bul topp suñu parti bàyyi loolu moi je parle dans le général. <laughs> seen parti moom nga li ma wax. parti wuutu jël. xoolal li ma gis nii combat fond bi mooy lan. mais Pape jël jël poste secrétaire général bu Maguette. Pape xoolal bu bu bu Moussa Diagne xam naa lépp. Pape <laughs> parti yi époque boobu dafa jeex lider yi ko xamul nañ ko xam ni responsable yeeg militants yi nekk ay xaru toppe mooy mouton de panurge mhm. wala ay xaju sàmm époque boobu dafa jeex gis nga 23 juin xeex bi askan wi xeex buntu assemblée mhm. ba du député yaa retiré loi delloo loi ba de gouvernement bi moo dem retiré loi bi mhm. ndax askan wi taxaw woon député yi ne ñoo leen fi teg nag doo leen ñu voté lu leen bu ngeen ko fi naree voté ñu defante kook yéen loolu moo tax gouvernement ba daw yëf yi tàng mu retiré loolu dafa jur ay changement yu am solo. mutation profonde profonde yoo xam ne tax na ba tey gis nga changement yooyu ñuy wax dinañ ca yegg dinañ yegg ba nga xam ne palin bi palinu député yi dinañu ko xool xoolaat ko. Mhm. ba nga xam ne ci gox yi su jaree ñu dem deuxième tour parce que am na liste bu amul majorité ñu war caa dem. parce que loolu moo jaadu député bi am légitimité. boo ko xoolee dina tax wax ci Sénat bi parce que nañ waxante dëgg. <laughs> ah Sénat bi tamit xam nga. ñu ne duñ ko di suut déglul ma wax la dañoo def assise nationale. ne nag ñun ñi engagement ya ñu jëloon en deux mille ak Ablaye Wade pour mu falu solution Sénat ca la bokkoon mille mhm. ba ñuy fal Ablaye Wade mu falu daa di ca génn 12 ans ñu di ko ngañ ne ko nag Sénat bii du fi am. ndax gisuñ gisuñu njëriñam ñu ñëw def assise national daa di ne suñu xalaat mooy Sénat bi nañ ko génnee mu nekk beneen kuréel mu nekk genre structure boo xam ne collectivité locale yi lay ŋànk pour ñu gën a am une gouvernance de proximité ñu gën a jege askan wi gën a taxaw ci soxla askan wi au conseil des collectivité locale la ñu waxoon à la place du Sénat moom la ñu wax ci assis yi kon nag xëj na dañuy utiliser terme Sénat nii rek mais ci sama yaakaar xam nga ne ci sama yaakaar ci sama yaakaar xam na lu ma gëm dinañu dem ci loolu parce que loolu aussi mooy loo xam ne moo jaadu mais dama ne wax Issa xam nga lu ma moom waaw Hélène mhm. ñii ñoo raw wax waxet déet ah, déet taxawal déedéet déedéet maa ko jël fii piilu faas moo nekkoon moteur bi maa ko jël piilu faas mu wax ma décision yëpp tey Serigne Mbaye Thiam moo nekk porte parole ne duñ di sudur Sénat. waa xam nga bu weddee mën naa ko daggal. xam nga xam nga argument argument yi ñuy utiliser malheureusement mooy ni que Macky Sall programme am la am sur la base de son programme lañ ko fal. mais man makki Sall premier tour ba mu déroulé programme am 26 pour cent. la am la am 26 pour cent yooyu faluñu ko. dafa dem vingt 26 pour cent yooyu may ko mu dem deuxième tour mu yeewu ni ma ko waxee sànq. bi ñu nee day dem deuxième tour rek mu jubal ca président Mbow du dëkk daa di jël assise yi kon nag dañu bu amee soixante ñaata. soixante soixante six pour cent. soixante cinq. soixante six la sax parce que soixante cinq virgule quatre vingt xaw ma ñaata la. Mhm. soixante six pour cent yi moom deuxième tour mais yooyu ak ñi ànd ak moom ñëpp ba yokk fuul la mu amoon vingt six pour cent am ya ñu yokk ci. 40 pour cent parce que dafa am ay engagement yu mu jël ñu nit ñu ànd ak moom ci engagement yooyu jàpp bëgg ko cee jàppale mhm. ndax looloo ko jig pour mu taxawee ko te yéene nañ ko ko moo tax ñuy wax nit ñi ne suñu démarche bi waroowul ak li nga xam ne moom la ñuy wut mais ñu koy wax ne Sénat bi ab Ablaye wàdd ba mu ko diggee en 2000 ne dina ko dindi def caa génn damaa ragal ba mu ca génnee ñun ñu def suñu assise nationale yi génnee ne dañ ko war a soppi Sénat bi. Hmm. ndax nag gisuñu mënuñu comprendre Sénat boo xam ne maanaam 45 ya dañ leen di fal ci département yi 45 département yi 55 ya président moo leen di nommé par décret loolu dañu war a weesu boobu étape parce que nag xeex bi ñu xeex yépp c'est pour aller. vers d'autres ruptures la. bu ñu bëggee tegaat loolu sénateur yooyu ban légitimité la ñu am. c'est des sénateurs du président nous on ne veut pas de députés du président on ne veut plus de députés du président on veut des députés du peuple. bu ñu moo tax dañoo bëgg tamit sénat bi bu fekkee ni que li ñu wax ci assises yi moom lañ bëgg a doxal ñu def ko beneen kuréel boo xam ne au conseil des collectivités locales boobu ñu waxoon mu nekk ñoo xam ne. bu ñu leen di fal ñu xam ñu tey fal fal bi sax moo ci jaadu. Mhm. pour ñu am légitimité war a dem taxawi taxawaay boobu ñuy xaar ci ñoom. Hélène. waaw deux minutes laa la may. dafay jeex nga tàgg ah gis nga rek maa yow suñuy waxtaan dafay neex trop mais xam la moom mooy gën a reetaan <laughs> xam nga wax samedi mag moom décollé mais dañuy wax di reetaan man damay jékk ba si yàgg damay dégg le ministre de l' intérieur wax solo les instructions du président de la république on m'a demandé d' organiser des élections zéro contestation ma ne ko bay leen wax yooyu c' est ob c' obligé yéen vous êtes <laughs> élu instruction ou pas instruction vous allez le faire nga gis benn ministre muy wax selon la vision du président de la république ñoom amuñu vision il faut qu'on l'arrête yooyu yi lañ war a bàyyi génn ci réew bi Pape Pape yaa ngi sa bul sànni xeer waaw réew bi yooyu lañ non bul sànni xeer sama gaañ non sama gaañ non non non non d'accord ma dama gaañooñu bul daa bul sama <laughs> bul sànni xeer sama gaañ dama fa am ay càmmiñ <laughs> waaye am fa ay càmmiñ am fa xoolal dama ne notre action. Mhm. l' action dañ ko moderniser doo dem France gis benn ministre. mais ministre gouvernement la ñu ñëw tamit. Macky Sall leen nommé. waaw d' accord mais dañ mel mais vision ba nag ndax dëgg yàlla ci régime <laughs> présidentiel nag lañ nekk. waaw mais si n' a pas besoin. xoolal Pape Alé on est dans un régime <laughs> présidentiel. dañu nekk ci xoolal. d'accord naa gaañi kay seen référence. mooy vision wu président de la république parce que régime présidentiel lañ nekk. léegi nag non du nangu xeer yooyu du fi jàlle. ay ay selon la vision le président instruit. le programme xeer yooyu xeer yooyu moom du fi jaar. <laughs> moo leen di instruire. Ah, vision am la ñuy topp pare nga ci deux minutes mayatuma la <laughs> ah, parce que fi nga bëgg dem du ma ko nangu. may naa la deux minutes ay <laughs> pour terminer. waaw pour terminer maa ngi sargal waa Sénégal yëpp di jégalu. Mhm. xëy na wax ji su amee ci loo xam ne aussi. dëgg euh, euh, nekk na lu su su amee ñu ma ñu mu ñu mu ñu mu ñu mu arrangé wul ak ñu mu xos it man loolu lañ ma xamee Sénégal mooy teg sama tànk fi dëgg nekk ba ma koy def Ablaye Wade euh, dañ ma ci doon sargal kon tey it loolu rek la ñuy taxawee bëgg cee des xaw foofu constance. loolu mais nañ bàyyi di wax kenn du ko dañuy critiquer Macky kay. lu tax duñ ko critiquer. non du Macky rek. non parce que non gars yi boo commencé ñoo xam non dafa teel ñu ne déet. non non non. lu ñu daloon ci Abdoulaye ñu toog cinq ans di wax la dañ bàyyi mu liggéey. naan déet bàyyi leen ko mu liggéey. xam na lu mu dafa teel état de grâce <laughs> waaye nag am nañ yaakaar ne. état de grâce président soxlawu ko. Mhm. président lu mu soxla mooy ku koy wax mu jaar ci yoon wi nga xam ne moom lañ koy xaare mhm. waaw loolu lañ yaakaar. absolument te moom la ñuy taxawee. Mhm. may euh, euh, lancer un appel à tous les électrices et à tous les électeurs. pour ñu voter liste bés du ñàkk. nee nañ bés daa bés sax du mën a ñàkk bés moom. saa yi ñu yeewoo ab bés la donc duñ mën a ñàkk ñun il faut ñu am ay xale ñu ko doon wax démb <laughs> suñu liste il faut mu am mu taxaw. bés du du ñàkk bés du ñàkk waaw nañ waxoon nañ ko euh, comprendre loon quoi. waaw bés ñàkk <laughs> mooy le 25 du ñàkk moom. <laughs> léegi nag euh, suñu liste moom liste bu am maanaa la euh, suñu bulletin nekk bulletin bu weex il faut nga may ma campagne lañ nekk. bulletin bu weex ak bind yu xonq nataalu Serigne Mansour si Djamil moo ci nekk. Mansour Sy Djamil sax lay wax parce que c'est le citoyen parce que man it su ma koy wax sax ci campagne bi naan ko Mansour si Djamil am na ñu muy choqué mais c'est le citoyen Mansour Sy Djamil qui est sur la liste. très engagé suivi de la citoyenne Hélène mu wone engagement am dem ci ba jeex ci xeexu. 23 juin. j'ai gardé en souvenir euh, grenade lacrymogène bu ñu dooroon mm-hmm. le 23 euh, boobu ci sama diggante ci Mansour euh, si jamin mm-hmm. fële place Soweto j'ai gardé ça en souvenir daa mon biro waaw xam naa dinaa ko war na ko dama ci marqué le 23 juin grenade boobu. boo rax ci dolli. <laughs> frère am dóor nañ ko fi bal. Mm, bal blanc fii. Mm-hmm. muy Cheikh Oumar Sy. Cheikh Oumar Sy loolu yëpp mu xeex ko ci. kon tey nag bu ñu bëggee yemale leen ne leen fii ngeen di yem du ngeen bokk ci langue gi. day doy waar day doy waar. kon nag ñu ngi leen di dénk suñu lis <laughs> jant buy fenq moo ci nekk ngeen jàpp ci. merci beaucoup Hélène maa ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax lay gërëm yooyu merci beaucoup vraiment ñu ngi lay sant di la gërëm baax a baax ci disponibilité yi et puis du courage bon la politique c'est ça y a trop d'injustice très souvent ah. mais bon yàlla na yàlla def li nga namm ci liste boobu yàlla may la nga dem Euh, fi nga xam ne euh, moo di rek euh, assemblée national pour li nga mébét pour askanu Sénégal mu def ko ñu ngi lay sant di la gërëm di wax régie ñu dem régie def benn une petite pause dellu si avec nos invités qui venir pour la deuxième partie merci.